yàll mbin dégg nga loolu mais Mbaye Diouf moom nee na dootul wax yàll mbin yàll saaxle lay wax mooy borom dëkk bi ah defe naa loolu la Mbaye Diouf wax ki dem mais yow tam yaakaar naa dégg nga li mu wax père Maxime yaakaar ko dégg mu ne rëbb ca coow la boo jamlit ku jàm may la mu mel ni ñëw nga di ko ñàkkante di ko ñàkkante ba tey yegsi ba ñu bari jàpp ne góor ëppatu la doole te dégg nga li mu wax maanaam seen wax ko mu confirmer ko mooy fa mu jaarale say mooroom muy ama muy booy ñaa maanaam xeex ak ñoom gañe leen ci xeex daan leen jël yu rëy loolu la lay def loo koy tontu yooyu xanaa déggoo woykat bi lu mu wax léegi lu mu wax biir yooyu ah man tarkinaa bi lii la soxla couronne bi lii man soxlawu soxlawu ma yeneen yi de bii laa soxla bii bii nga xamee manga deux moom la teg ci boppam waaw bii nga xam ne Yaya Diop Yékini moom la teg ci boppam. bi nga xam ne Mouhamed Ndao Tyson moom la teg ci boppam. waaw bii bii bii. bi Eumeu Sène ci boppam. bii Eumeu Sène teg ci boppam. bi Modou Lo yore ak. bii Modou Lo ñoom ñoom ñu teg ko si bopp. waaw ñu ma koy xañ. moo tax bii ni benn faxas. bii laa soxla bëgguma yooyu. bi gaynde bi yor. ah ok eh, waaw bi gaynde bi yor moom la soxla. xam nga kii lu tax suñu làmb maa moom di neex. waaw dafa am lu nit ñi xamul. dafa am lu jaar suñ diggante te barke alxuraan làmb du tax ma dindi loolu mais ku bëgg gis bëri duur bëri duur xeex làmb joo xamante ne sama bakkan laay teg ndengeñ sama yaram ñeme jam-jame suul tànk yi nga xam ne tarkinaa bi ñëw na moom laay bëree mais du ma ko dépassé parce que bi may ñëw ku ne li ma léemu xam la la ma wax waaw boo demee na nga jox Modou cër ngir yàlla man leen Modou du ko ñàkk jox cër mais dañuy làmb waaw te di wax supporters yi man xamal laa bëgg Mansour bi sànq dama ko ne yow comme yaa ëffalaate yow da waroon a ñëw taxaw fii Mansour dina ñëw léegi. parce que xam nga tax mu war taxaw fii moom moom moom événement bi ñun ñu ko si jàppale mu nekk jàmbaar lool. waaw ñun ñooy ay tarkindaa tarkindaa moo tarkindaa buñ ko waxee moom jàmbaar ñoo bokk ndey ak baay. mooy koo xamee doo bàyyi. waxuma la curkindaa de curkindaa mooy kii dégg ra dem ba ci biir gifab. mais tarkindaa. tarkindaa mooy ki dul bàyyi kon tarkindaa. ah lu tar xam nga lu tar. lu tar waaw lu tar mooy tarkindaa. curkindaa lu cur. waaw lu cur mooy yambar koo xamee ne sa xel day war a nekk fii nga yóbbu ko kër ga. nga yóbbu ko fële. ah déglul ma la. waaw dama bëgg ngeen déglu ma. heure baa jot lamb ji dafa jaral lu ne. waaw taxawal ma wax la man bëriwuma ay Modou Kese de. koy dafa am ñuy bañ. ñana ñoo xam ne dañoo nekk si town bi. fii Ndakaar di bañ. waaw di salteel. waaw. ndax yéene bi kii am ci man. waaw mais yéene boobu ak bëre. waaw yal naa rien à voir. dëgg la waay combat bi sama xarit yi nekk Amérique. waaw ku mel ni Major Gueye dañoo créé benn groupe sama xarit yi nekk Amérique ma yàgg xam leen depuis 2013 ba léegi ñëppay ñëw événement la. kon li ma bëgg mooy Mansour. Mansour suñu dëgganteeg sécurité yi nga bëgg nga lal si jàmm. nga wax leen ne ñun seen i tenue ak ñun civil yi benn la ñoo bokk yi waxu papa. bi ñuy ñëw si yoon bi. samay supporters yëpp laa bàyyi jàmm gën ne leen fii cinq personnes lañ ma convoqué parce que bëgguñu violence ah. lu ñu soxla mooy waaw combat bi kuy ñëw na nga sangu ba set dox nank bu jotee kenn homme de tenue yi ubbi leen bunt yi sama supporter ci bunt bi ñëpp dugg ay supporters Modou Lo dugg man ak moom paquet de biscuit du yooyu benn loolu am na solo Boucar mu gaaw benn question rek Boucar mu gaaw benn question mu gaaw parce que gars yi li ñu des ci temps bariwul non dañ ko bindoon dañ ko bindoon moo tax. gars yi ñoo ko bindoon ayca allo. salaamaaleykum mbokk Sénégal bu gaaw rek waaw salaamaaleykum di nuyu ñëpp di ziar ñëpp jeex na jeex na. di nuyu Eric Fabre di nuyu Jambar production di nuyu assistance bi yëpp. côté site da nga fi gis Tafa Karaat gis fi gars yëpp boo duggee fi aussi da nga fi gis waa parcel kon ñu xam ne lamb ji lamb jàmm la. borom lamb ji jàmm la woote ñaari mbëri yaakaar naa ne jàmm la ñu woote. waaye Modou Lo dama ko fekk dañu ànd dem ndàngaan mu ne ma ne wax ji bëri na lool lool lool lool mais Siteu na xam ne lu muy gën di wax làmb ji di gën a métti si moom. moo tax may wax nag damaa bëgg mu métti bari lu yomb. Modou Lo ñu gis ne li nga waxoon Siteu loolu la continuer di def ba léegi mu ngi continuer vraiment di wax di la gëtën di la harceler ndax làmb ji Modou Lo da nga koy méttil comme ni nga ko waxee woon waaw wala déet jërë ngeen jëf. man góor du ma harceler góor du ma gëtën mais li ma waxoon maa ngi jëm a tey li wax ji di gën a bari mu gën a métti. c'est bon. ñëwal dox si. loolu laa bëgg. damay ñëw loolu kay biti la fanaan. ok gars yi yéen ñi bëggoon a poser question temps bi 20 moo ci des Modou Anta jàmbaar nee nañ dafa am ñoo xamante ne foog ñu sànni ci ay kàddu surtout waa Distingo ñi nga xamante ne dañu génne seen xaalis bu bari dugal ko ci combat bi di woo tamit yeneen yi képp koo xamante ne yor nga loo xamante ne bëgg nga mu jar bëgg nga nit ñi xam ko ñëwal nga dugal ko ci combat royal ndax doo ko réccu Siteu moo toll noonu Modou Lo moo toll noonu Fallou Ndiaye aussi mu ngi fi borom la 18 Ndiaye mu jox la nga sànni ci ay kàddu loolu Mansour ba moom moo sàkku loolu nga wax ci turu promoteur yi waaw Lamine ñu ngi ah. di nuyu assistance bi fi teew yëpp di nuyu le grand champion le roi Modou Lo di nuyu Siteu le Tarkinda di nuyu Mansour Ba jàmbaar Wrestling ak Eric Faoul bi nga xam ne mu ngi koy accompagner di nuyu tamit Buzz Pro seen affiche di nuyu tamit Buzz Pro seen affiche di nuyu vraiment waa parcelle di nuyu waa Jàmmagën yi fi nekk yëpp di leen wax ne comme ni ko Siteu waxee Modou Lo waxee ko rek nañ xam ne lamb ji moom ñaari mbëri rek ñooy ne ci géew bi supporters yi nañ ko def kalmu vraiment def ko ci dal ñëpp man cee gis seen bopp làmb ji nga xam ne zéro violence lay nekk leneen li ñu ngi wax Mansour Ba Sénégalais yi war a jàppale euh, société nekk ci biir réew mi dañoo war jàpp ci combat bi ndax lii combat royal la te combat royal nag mooy li nga xam ne mooy day day jëpp làmb tey combat Modou Lo Siteu fa la yem ndax mooy titre roi des arènes vraiment mu nekk titre bi ñu defal ko ni mu am solo lool kon lu mel noonu nag buñ koy def sénégalais yëpp ñoo ci woo dugal seen loxo sénégalais yëpp ñoo ko woo jàppale doole ko te jeune la xale la li mu yor mën na koo def ci leneen de mais dafa ñëw yu contribuer ci làmb pour yokk làmb ji mu jëm ci kanam kon na ko sénégalais yëpp jàppale dooleel ko vraiment mu maanaam réussite totale ndax boo xoolee tey di songo rek moo fi nekk te ñu ngi ñaan yeen sociétés yi ne ci réew yëpp muy sociétés yoo xam ne état la muy sociétés yoo xam ñëpp ñoo dugal seen loxo ndax yaakaar naa ko ci dugal sa loxo doo di wax ne daal vraiment am nañu mbégte bu baax di nuyu tamit promoteurs yi fi toog yëpp jamay keng fi Ibou Laye ak euh, Modou Baye Fall di leen nuyu di nuyu yi xam ne ñoo ngi fi nekk di wax ne daal vraiment ñu ngi ñaanal Mansour Ba mu am les total fi lamb ji mu nekk. merci beaucoup merci beaucoup Fallou Ndiaye borom le diggante Ama bu yaraax ak ki nga xamante ni moom mooy adversaire bi Siteu bu anti nee na bisimilah borom bi sengo ñëwal taxaw nii. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax nee na di la ziar bàyyi la nga nuyoog ñi lay seetaan lan ngay wax sénégalais yi ci combat royal bi ak yan explication ngay indiwaat ci distingo allo. waaw ñu ngi may bëgg a dëggloo de. mbaa mbër la dóor. sa blouson bi rafet na de. ah la. su yoon xoolee dënn Modou bi marque distingo moo fi nekk. waaw. rafet na trop balaa may fàtt rek bi may ñëw léegi dama doon échanger ak sama PDG Mouhamed Djibril di ko nuyu au passage donc dañ doon échanger comme quoi am na éventualité combat bi ñu offrir ko gracieusement aux amateurs en direct boobu sera financé par Distingo. Distingo dañuy maye combat bi Sénégal. possibilité la. possibilité la ok organisateurs. ok mun nañu la semaine prochaine essayer de. war naa mën a nekk les discussions. et je sais que à pour cent ça c' est possible. parce que macha allah macha allah voilà. donc distingo comme euh, ni ñu ko bindee si euh, blouson mode bi marque de Kaye la. parce mm-hmm. que c' est depuis cent quatre vingt la fi nekk. dañuy def ay cahier simple di def ay cahier plastique di def aussi. Euh, papier à quatre quatre-vingts grammes distingo mm-hmm. te soo seetloo si marché bi aussi marque boo xamee ne la bu am notoriété la mm-hmm. parce que en terme de notoriété top of mind munoo jël dix personnes laaj leen ban marque de kay te waxuñ la distingo distingo rek fi nekk ñoom ñun rek ñoom ñoo fi nekk yéen kese lay topp euh, di fàttali rek ne aussi comme marque de kay la amateur euh, lamb yi ñi nga xam ne ay parents d'élèves lañ su école tijjee ku si dem di jënd kay soo demee na ki lay jaay laaj ko ndox man kay bisto nga laa bugg. saa mu daal la koy jaay. macha allah loolu am na solo Père école bu tijjee xale yi bu ñu jëndi kaye nañ jënd marque distingo waaw doom ci sol la bokk yéen ñëpp dee leen jënd distingo yi ci des dafa gaaw a xotteeku de. non parce que sunu slogan mooy distingo se distingue par la qualité. et je pense que qualité boobu depuis ñu nekk ci marché bi ba tey moom la moom la moom la ñuy def. macha allah kontaan nañ ci moom bu baax a baax. di rappeler rek. aussi li ma wax léegi combat bi possibilité la et je pense que avec une probabilité forte de quatre-vingt-dix-neuf pour cent mun nañ ko offrir gracieusement aux amateurs. incha allah incha allah loolu am na solo waxtaan la rek yàlla na ko yàlla yombal parce que combat la boo xamante ni Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar. mu war a dox ci diggante Siteu Yalmin bi borom jonwaar mar fa faxo marloo ci ah ak Modou mais Siteu dafa mel da nga am envie ñu siffle combat bi dimanche dimanche incha allah. yàgg na. ah. pare naa. pare nga bu nekkoon dimanche. grand bi te ñu ko tëgg nii. non fii kay du baax moom fii du baax. lan moo tax nga yàkkam di Modou da ko man bu doon suba suba pare naa du yàkkamti loo bañ mu ñëw rek bu ko jàppal biis dégg lool olof nee na loo bañ mu ñëw bu ko jàppal biis bis lii yàkkamtiwuma ko heure bu ñëwee rek baax na waaw. ah Modou si tey yàkkamti na la instant bi jàmmaarloog yow di leen fàttali combat bi le 24 novembre la 2024 waa Kër Siteu nag nee nañ combat bi dafa sori parce que jàpp nañ ni seen mbër pare na. sa copain yàkkamti naa jàkkaarloo ak yow de Modou.